mais euh, tey Mati euh, gis nañu démb euh, li nga xam ne moom mooy conseil interministériel bi président Ousmane ko dirigé woon. Mm-hmm. ànd ak ceeg le ministre du transport. Mm-hmm. parce que quoi qu'on puisse dire accident yi jamono ji recrudescence bi kay c'est autre chose mu ngi mu ngi gën a continuer mm-hmm. di gën a bari. déjà ñu ngi jëm ci màggal te ku ne xam na ne actuellement il faut ñu alerter moom ci biir kàddoom dégg naa ko mu ne 22 yi 18 sax lañ waxoon mais 22 yi. am na ci yeneen yu ci dooleeku mais dañu ko war a appliquer à la lettre te souvent Sénégal aussi problème application la ñuy am parce que souvent ci ay émotion la ñuy dem. problème suivi kay la noonu. tey problème mu transport bi wala sécurité routière bi dafa laaj ay réforme très très sérieuses yoo xamante ne suñu ko defee. duñ ci duñ ci toppaat di ci jaaraat parce que nag chaque jour bu accident amee ñu ne nañ leen jël ay mesures di jël ay mesures nag te doo ñaw am na leneen lu ko gën aussi. <laughs> effectivement te euh, fait. xam nga problème bi mooy euh, euh, Lalla mënuñu jël benn gendarme bu nekk wala ñu jël benn policier bu nekk ñu teg ko ci watu chauffeur c'est que ñun sénégalais ñoo war a yar suñu bopp ba nga xamante ni c'est pas parce que gisuñu homme de tenue rek waruñu doxal yoon Lalla ci kaw tali bi ngay nekk man presque chaque jour daanaka jafe na ma xëy toog suñu kër mais Lalla ci kaw tali bi ngay nekk déjà dan la naan lim ñu jàngal ci code de la route balaa ngaa doubler. da ngay xool ba xam si sa rétroviseur da ngay xool ba xam amul oto bii ñëw si sa ginnaaw yaa ngi dégg. Mhm. ñu ne la xoolal ba xam oto bi xool sa kanam ba xam mën nga doubler ba xam amul obstacle. yaa ngi dégg. Mhm. ba pare mais yow fii da ngay gis du yow doublé doublé par la droite sax fan nga koy gis fii nii si kaw tali bi ngay gisee kuy doublé par la droite. Mhm. am fit ba bëgg a dee ba pare boole ko day gis koo xamante ni day gaare otoom. yow yaa ngi daw vitesse de moom mu ngi gaaree de taal ay kii euh, feu de détresse am lan koy xam. Mhm. feu de détresse waaw yow yow nga yow ngay yow yaa ngi daw di ñëw nga jékki-jékki rek gis ko mu génn. en fait mhm. yoo xamante ni maanaam ñun en fait problème bi ñun la ñun doomi aadama yi ñun sénégalais. ñoo yàqante danoo am problème. Mhm. moo tax bu ne bu chaque fois booy gis bu ñuy def évaluation da ngay gis ñu ne euh, accident yi saay bu amee. da ngay gis à 80 pour cent c'est à cause du comportement humain. Mmh. effectivement dëgg la da ngay gis camion boo xam day paan si kaw tali sax. triangle de signalisation boobu du ko teg sax à 100 mètres. 100 mètres bi nga xam xamante ne pollution bi ñuy wax kon est-ce que dominé wul ci secteur boobu. waaw mais parce que triangle yooyu ngay wax yépp visite technique ba fa lañ ko war a régler. waaye yow lan la yow problème bi déggoo ma ne la problème bi c'est suñu comportement humain cela veut dire que c'est pas ñun ñëpp ku nekk am nga ci part de responsabilité laala da ngay gis oto boo xamante ne dafay fees sax yow nga ne par force da ngay yéeg dem nga ne ko bàyyil ma yéeg taxaw nii rek mm. wala tegal ma taburee ma toog rek mën naa dem rek mm. nga dem nga dem visite technique yow sa oto yow xam nga ni boo ko jaareelee ci yoon oto bii moom warul génn sax pour daw mais doo dem dangay woo la la amoo koo xam centre visite technique ba mu ne si am na ko ma fa xam kay xaaral ma woo la mais nii ak nii ngay doxalee ak moom allo diw laa la moo boole ak yow man de dama sama oto bi nii ak nii foofu ngay toog mën na la mm-hmm. envoyé ma sa carte grise envoyé ma les papiers ñu ne la defaral na la visite technique te oto bi sax jaarul pour ñu xool ko léegi loolu noonu nga foog ne loolu kan lañ koy def mm-hmm. en fait moo tax lii euh, am na benn euh, sëriñ bu ko doon wax bu doon naan ay tant que doomi aadama deewul ba yàlla juge ko rek ba mu mës a taxaw ne man mosuma faat doomi aadama si parce que déjà yow acte yooyu ngay dem nga jël ko di ko xeeb accident su amee nga foog ne sa responsabilité du engagé wu ñu dee noonu sa responsabilité daf si engagé wu mhm. moo tax problème bi problème de personne la te ñun suñu jëm bopp ñoo mën a dimbali suñu bopp tàmm nan nag saay bu ñu jëlee des mesures yoo xamante ni ce sont des ko draconiennes mhm. ku nekk taxaw di yuuxu naan ay menaces lan ñuy def ak tanoo tàmm di menacer nit ñi ak lu kenn xamul parce que la preuve même décision bi bi El Malick jël monsieur le ministre ci màggal gi chauffeur secteur privé bi commencé nañ naan noo waru ko defee mm. nii xam nga waaw léegi léegi ñoom danoo bëgg ñu bàyyi leen ñoom ñiy topp doomi aadama yi di noggatu kese boo xee ñu naan dépense la ñuy daw li moo tax balaa may dee ñu naan ay liggéeyu ndey añub doom waaye barke bàyyi tamit war nañ ko lijjanti ndax kuy dundalee sa doom di baa munul munul barke bay bay bay wàllu ndeyam non sérieux Sénégal dafa dafa metti mm-hmm. imagine yow nga war a nit ki euh, bi moo war a fay 2000 nga ne ko par force 4000 lay fay parce que mooy fay retour tabaski bi ba nu jëlee oto Dakar dem dikk yi ñu ñu ñu ñu assuré kii bi eh, ñu assuré eh, intérim bi. Mhm. da ngay da ngay da ngay gis da ngay gis accident bu am. gis nga benn bis Dakar dem dikk bu bu la ne def na accident. déedéet wax cela veut ni donc la problème see nous. Mhm. ak mesure bu nu mënti jël. tant que ñun doomi aadama yi réglé ñu wala comme nag bu ñun bu xamuñu carotte nan jël bâton ndax nit moo xam dof xamul yàlla waaye xam na yàpp ah bâton nag ah déet. boo waxee ba sonn. ngay wax waa léegi mos. peut-être nañ jël yeneen façon sanction. yow accident si kilo bi bi mu fi amee. Mhm. waxuñu woon dañ fiy dindi affaire porte bagage yi. ñu dañ fiy dindi ñu wax waxuñu woon ni mhm. xaw ma dañuy euh, oto yi à partir de xaw ma 22 heures 23 heures dootuñu daw kii interrégion yi. si mhm. dootuñu si si si kii yi nii. fu fu mu la fekk heure boobu su jotee fa ngay taxaw daa tax accident yi wàññeeku dama lay laaj. et puis pas plus tard que accident bi mujjee am côté ndànd xaw ma. voilà. xoolal oto bi def choc. waa boo xoolee état oto bi rek. waaw waxuma la camion camion bi moo jógee ci yoonam ñëw fekk si kii ci yoonam. léegi effectivement parce que en fait route nationale bi amul. tali bu séparé ñaari voies yi. waaw lé mais même bu amul tali xam. kii bi nu mu tudd euh, euh, kii bi ligne ligne kii bi. li euh, séparé ñaari voies yi. léegi séparé wul ñaari voies yi yaa ngi ñëw sens inverse kay yow desal sa voie rek. Mhm. c'est pas parce que amul oto biy ñëw wala seen oto biy ñëw de l'autre côté rek nga ne da ngay jéem a def nii pour boo dawee ba si yàgg boo ko xawee seen fële rek nga daw duggaat sa voie nan respecté sunu bopp yi te xam ne bakkan benn la. waaye Sénégal moom dafa mel ni moom dañ lay ne boo deewee da ngay da ngay da ngay dundaat xaw man je sais pas xaw ma danoo bëri. ay <laughs> alors fi ñuy jeexalee te rapidement muy euh, euh, wàllum immigration clandestine. waaw jamono ji ku ne xam na ni heure bi daaw moom euh, lu yàlla xam doy na. Mm-hmm. li ñuy li ñu li ci li ci faatu dafa bari wala at bu jot boobu. Mm-hmm. peut ren gi sax ñu ngi jël gaal yi marine baa ngi leen di intercepter mais ñu bàyyi. te tey comme ni ma ko waxee gouvernement bi nag war nañ teg politique de jeunesse boo xamante ni ndaw ñi dinañ mën a toog wàññi gaal yi parce que nag ñi ciy dee dafa bari te ci loo xam ne yow amoo certitude que ni di ngay yegg baa di nga dund doy na waar. xam nga euh, laala nit su demee ba yemale dund ak dee rek cela veut dire que ni sës na te xale yi li ma wax rek euh, ku leen juróon yërëm leen ndax euh, toll ci tekki bëgg a tekki dafa metti Euh, te dama koy natt sama bopp moo tax dama leen di comprendre parfois ndax euh, Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ni euh, xëy na du nu bu nu amoon une société compréhensive dina gën a yomb ci xale yi te nit ko lu mu am rek nga bañ ko ko xeebal nga koy doyloo dina yomb ci gone yi mais dafa nekk dëkk boo xamante ni liñ lay teg parfois doo ko attan ci diggante laaj yu ñuy topp di la ko def ay yow diw wala di la méngale ak diw naan xoola diw li mu am xoola diw li mu def nii xoola diw li mu def nii xoola li mu defal yaayam en fait boo nekkee koo xam ni gor nga baat yooyu dafay diis pour nga koy dëkku te c'est pas forcément que ni da ngay dem Europe rek dangay ngay tekki. Mm-hmm. certes mais au moins di nga ni li nuy jàpp mooy xëy na di nga mën a éloigné wu à tel point que xëy na koo dégg yow yaa ko wootu ko buggul mu sonal la du la sonal xëy na loolu bokk nañ ci li leen di gën a encourager à que ñuy fuir la pression sociale. sociale. Mais une chose est sûre, hein, euh, je leur avais dit ça parce que le cas de Papito Kra, j'avais même mhm. écrit une lettre sur ça, mhm. ndeysaan que je devais lui dédier en guise domage Euh, euh voilà amiin amiin mhm. donte sax nag moom euh, xëy na buñ ko bàyyoon ak tey bakkanam du dem ndax demul pour bëgg a tekki mais dafa doon daw fitna. ba li ko ci dal dal ko ci donc j'en tiens pour responsable le régime sortant. mais euh, jeunesse bi je leur dis une chose seulement bëgguma sax ñu leen leen di méngalee ak naan ay liggéey yu ndaw ndawaan ñuy topp di xeeb mais lan la euh, koo xamante ne étranger la xaalisu Sénégal français CFA bi ëpp valeur seen xaalisu dëkk kooku bu amee 5000. mën na cee yónnee mën na see añ mën na cee reer mën na cee ndékki mhm. boole kook moom koo xam ne fi ngay liggéeyee mën nga fa tëdd fanaan mhm. bokkul ak sénégalais boo xamante ni fii nii dund gi dafa chair de un mhm. dépense yi metti na. Mhm. boole koog lépp cher na. moo voilà nañ ci góorgóorlu bu waa loolu moom loolu moom wax dëgg yàlla dañ leen di ñaana mu bañ a nekk euh, un échec comme les euh, précédents régimes. Mhm. à ce que ñu góorgóorlu si mettre les mécanisme qu'il faut ñi war a dem am forme parce que tamit nit ba ñu lay dimbali day fekk nga nekk ci comme ni ñuy wax ndax ndimbal da siy fekk loxol boroom.